maanaam objet bu la jege ni do ko gis bu baax tu vois plus de de loin que de près non kon aw ko ndax maa ngi gis nii presse bi si moom mooy ñi nga xamantene dañuy gis de loin mais dañu gis de près de près moo tax des fois nga gis maire ak pay yi bu ñu bëggee lire benn affaire rek ñu dem jam seen lunette yi mm, doo koy seetlu balaa ñoo mën lire rek nga gis leen ñuy wër lunette yi waaye sama lunette yi fan la nekk waaye d'habitude seen lunette yi sax double foyer lay double foyer lay doon moom ñu jël ko nag samp ko ni pour mën a lire li ñuy lire mooy ñoo ñooy presse bi ñi nga xamante ne seen vision de près bi dafa wàññeeku mais seen vision de loin bi quand même mu ngi stable c'est différent de la myopie bi nga xamante ne da ngay am non seulement problème de vision de loin et de vision de près. waaw man nag bu dee man sama benn bët bii du la. voilà benn bi mooy gën a faible benn bi gën a kii bii moo gën a faible. voilà noonu lay ah, demee en général. loolu nga xam ci myopie bi normalement xale bu fekkee xale bu myope la normal dans les normes warul am vision de près. de près waaw vision de loin la war a am ba benn âge bi doo gis lu sori mag ñi nag d'habitude ñoom ñooy bu ñu seen lu ñuy gën di màgg seen bët day seen vision dafay gën a faible ñoom ñoo dul am vision de près am na si nag ñoo xamante ne dañuy am et les deux vision de près ak vision de loin moo tax sax bu njëkk ba da nga daan gis lunettes yoo xam ne boo ko takkee day am benn genre carré nii ci suuf mais comme ça léegi jamono dafay dox léegi dañuy def yoo xam ne progressif la doo ko doo ko mën a seet ah, effectivement de toute façon lunettes yi de plus en plus léegi dañ leen di euh, adapté ah hein ils sont tous adaptables. Amna c'est nak ay cas rare yo xamantene comme man sama lunette progressive la te lolu c'est pas normal. Mm. peut-être dama commencé takk lunette à bas âge. Lolu motax ma am ko Amna na ñoo xamante daf leen di teel mais progressif mooy progressif anti reflet. non anti-reflet c'est autre chose anti-reflet c'est autre chose anti-reflet gis dafay mauve maa ngi sàcc sa rubrique bi parce que li ngay wax nii dama si xam dara da ngay gis yoo xam ne lunette yi boo ko takkee dafay am benn effet bu mauve bu ci nekk ultraviolet bi mm-hmm. mooy tax booy xool ci écran bi du am yenn effet yi sa biir parce que ñëpp xam nañ ne rayon écran bi bu ñëwee rek mm-hmm. voilà jànkonte ak sa bët bi directement dafay indi beneen problème mhm. am na si yoo xamante ne aussi pro euh, photogré la mooy yi nga xamante ne naaj bi bu tàngee automatiquement dafay changer de couleur dafay noir photogré yi nag dafa am ay façon am na yoo xam ne dafay genre gris am boo xam ne dafay noir am boo xam ne day nekk noir fumé ça dépend si nit ki bi mu bëgg loolu boo gisee ñu koy def c'est juste pour te protéger contre le soleil moo tax ñu koy def walaay daaw da moom bosom daaw da moom bosom day changer couleur nu ko neexee ça dépend bosom ah, rose fuchsia la rose <laughs> keroog gis naa xam rose bu rafet la am revenons à la presbytie Maïté des informations. Wow, donc comme comme on a dit la presbytie moom euh, le fait que ait une perte de vue de près par rapport à objet de près la plupart du temps les nit ñi euh, réaction non seulement ils ont du mal à lire de près donc ils sont obligés soit de porter des lunettes pour pouvoir lire cette euh, vision des affaiblir de plus en plus selon l'âge à partir de 40 ans avec cette vision, on sa vision commencer di affaiblir. sinon on a am problème chaque fois ay métit migraine comme par exemple ni soo liiree ba pare rek boo pare da am ay maux de tête. C'est adducteur adducteur wala sa neex. adducteur yi <laughs> sa adducteur yi ñoo lay ñoo lay. yow moom xam nga sa maladie yow. cest <laughs> adducteur C'est day sa adducteur yi dañuy voilà donc mooy réaction yi nga ne le presbytie di gën am donc euh, pour ñi nga xamante ne par exemple ils ne savent pas exactement lan am mais euh, de, de manière générale c'est à partir de 40 ans donc euh, en plus on prend de l'âge on mais sinon la plupart du temps c'est des cas de myopie en général mais à moins de cet âge là ils ont déjà la presbytie donc ce n'est pas forcément parce que tu as 40 ans ou que tu n'as pas 40 ans que tu ne l'as pas voilà les guimons, voilà donc par rapport à déjà rek suñu attitude yi ñu am attitude déjà avec tout le temps sur l'écran, comme ni ko dit, on est constamment sur les écrans si les écrans n'ont pas de filtre par exemple automatiquement on fait agresser bout de bi automatiquement voilà ou bien euh, euh, de réduire la luminosité la luminosité des téléphones nga xam que ne dañ koy yokk ba mu sës toute une journée nekk ci loolu yëpp dina la defal ay cas de presbytie wala tout le temps nga exposé ci xam nga tu as toujours la vie euh, rivé sur de la lumière forte forcément daf la koy donc moo tax c'est pas parce qu'on n'a pas 40 ans qu'on n'est pas presbytère donc ça dépend rek il faut vraiment euh, nga dem consulter si tu ressens déjà genre nga bëgg lire benn affaire bu tu vois que tu as la vision floue wala nga jékki-jékki saa soo liiree affaire tu as des migraines sa bopp di métti ak yooyu noonu demal seeti euh, ophtalmologue ñu xoolal la consulter la defal seen test yi xool exactement ban type nga am et à ce moment là ñoom dinañ xam quel est le traitement qu'ils peut faire pour mun la permettre nga retrouver waat sa train-train de vie normal avec sa vision normale parce que euh, li ñuy wax naan bët mooy nit moom du ay caaxaan oh. waaw bët daal mooy nit oh. donc vraiment nañ ci bàyyi xel bu baax quand on commence à avoir des des migraines euh, excessives di am problème pour lire lu jege nga jàkkaarloog benn affaire image ñi image bi di flouter sa bët déjà loolu c'est pas normal xam nga ko donc bu gisee genre état yooyu rek xamal ne y a un petit souci dans la vision donc nga dem seeti ophtalmo ñu consulter la s'il y a des traitements à faire parfois dinañu jox ay collier pour le début jox la ay ay ay pommades su fekkee sa bët dafay métteeg yooyu noonu defal la traitement après donc le prescrire lunette bi nga xamante ne moom nga war a sol selon le degré bi nga xam ne moo adapté ci say bët. collier rek laa bañ. yàlla boo def nii nag am na benn bu tudd jooyaale ak tefron loolu moom comme kaani boo eh, ko defee gis nga laari yow bëggoo dem géej yow li nga bañ a bëre non mais laari nag di nga rek la de ah, ko sa bët waaw waaw c'est la dëkk yow xam nga man chaque quarante cinq jours là je prends pour nettoyer bët yi mais saful rien à rajouter. c'est juste pour rappeler aux gens que voilà quand on a ces genres de soucis de santé euh, parfois on a tendance à les négliger parce que voilà c'est des détails parfois on xam nga ne ak ah su ma naanee benn ibuprofène fii wala bu ma naanee benn benn panadol wala benn doliprane rek ça va aller mieux effectivement quand tu prends ces genres de médicaments tu sens du soulagement alors tu penses que ne da nga soulager ce, ce, ce, sa douleur ce mét maanaam sa bëti alors que soulagé woo ko tu as juste soulagé la douleur bi nga xamante ne moom moo nekk ci sa bopp bi mais bët bi il reste toujours dans le même état donc li gën a sûr daal mooy quand tu as des migraines euh, yi nga xam ne dafa euh, prog dafay à chaque fois que tu lis en fait pas nga am migraine nii rek nga tëb tëb ne sama bët yi la mais par exemple nga sëgg ci ordinateur lu yàgg nga pare gis ne tu as des wala nga sëgg sa machine sa sa portable ba mu yàgg tu te rends compte que tu as wala nga bëgg a gis benn image euh, affaire yi semble la bizarre nga mel ni ku xaw a nekk ci benn nuage ni dawal dem seeti ji ophtalmo mais léegi <clears throat> téléphone yi moo gën a tax loolu di am parce que def bu njëkk ba ordinateur daan am te quelques rares maisons ko amoon cyber nga daan dem du tout mm. nga daan am cinq cent foo dem ba pare kër yi aussi télé la daan am mais ñëpp léegi ay smartphone lañ toog koo gis mu tëdd sangu sax téléphone am mi ngi ak moom ci biir voilà mi ngi noonu te ah, loolu baaxul man par exemple mënuma bañ a euh, amul lumière nii daf may gêner alors da nga war di wàññi luminosité bi c'est ce qui est recommandé mais man tant que newul fang fàngaaral ma ngi gis rek pour man euh, téléphone bi doxul. et puis et puis y a un problème c'est-à-dire que les gens qui sont dans l'audiovisuel ay monteurs yi

am na ñoo xamante ne seen lunettes yi wallahi boo ko takkee dara amu juste ay lunettes de soleil lay doon xaw ma correcteur lañ koy wax xaw ma ñu defal leen ko mu am anti reflet am yëpp ñu daal di koy takk et puis c'est tout parce que seen bët yi dafa tuuti mais am na si nag ñoo xamante ne non mais c'est grave kii ni lañ koy bàyyi man dama xam benn affaire su nga daw de benn jour dina la ko fi assassiné la disparaître loolu la waxuma ak tontu <laughs> daaw

mais benn technicien mo nek ci adina mo nek fan. moom mo nek ci adina fii lañ nek ñun. moom mo nek ci adina man sa pap té du technicien <laughs> technicien en quoi xawmu ma wa <laughs> waaw té loy té rek. voilà donc mu ngi nonu c'était juste pour euh, rappeler aux gens que voilà, voilà y a certains symptômes qu'on xam dañ koy am mais euh, on a tendance à les négliger donc il faut pas négliger surtout mbirum bët moom il faut vraiment vraiment s'atteler à ça le plus rapidement possible dès que nga senti lu anormal rek dawal gaaw c'était ophtalmo si tu dois mettre des lunettes bah, si tu n'aimes pas les lunettes ben, dommage pour toi il faudra les mettre parce que l'eau moins réguler ce vue faites qu'elle est, tu aimes les lunettes ben, tant mieux tu vas vite en avoir des jolies qui vont euh, qui vont bien t'aller et en plus des lunettes après au fur et à mesure ça s'adapte sur ton visage donc les gens dañuy du mine lolo. et merci tout à Maïté c'était la rubrique euh, santé ñu doon à presse BC.